Euh, salaamaaleykum internet du Sénégal alors tey dañoo ñëw doxantu fii Maris ñëw seet si fii Baye Fall démb gis nañ vidéo lu mu virale euh, mu ñëw pour la première fois wax lu koy metti wax feebaram ñëpp ko ñëpp ñëpp taxawu ko même su fekkee du financièrement ñëpp mettitlu nañu acteur bu mel ne moom nga xam ne bëggal na Sénégal mettit bi dal ko Baye Fall ma bàyyi la nga nuyoo. waaw maa ngi leen di ziar baax di leen bëggee waa Sénégal di nuyu waa adduna bi ñëpp di nuyu waa. Sénégal bi ma dëkk di waa àdduna bi di nuyu monde entier di leen wax ni man seen jaam laa bu xeebu rek boo xamante ni ko natt moo dal sama kaw nangu naa ko. Mm. alors natt boobu kañ la dal sa kaw kañ nga kañ nga kañ nga sentir ne euh, sa bët yaa ngi métti déjà. yàgg na lu teg ci ay ñaari at ci ginnaaw rek dem jëm ñett. Mm-hmm. ñetti at. Mm. nan nga ko dundee ba nga demee ñu ne la da nga am problème mu bët ak ban feebar lañ la wax moom nga am. waaw non dafa commencé woon rek di fulu bëti di fulu bu ma xëyee day fulu bu ma demee ba ay boru midi une mu arrêté bu ma xëyee mu fulu bu ma demee arrêté bu ma xëyee mu fulu noonu laa jàppoo nag moom ay pendant six mois jékki-jékki nag fulu bi continuer naka noonu ma xam ne nag lii fu mu jëm baaxul ma commencé di ci faju. ba mu fulu est-ce que teel ngaa dem hôpital teel a jóg kay mënut bu ma gisee muy fulu ma xam ne fulu bi arrêté wul ma dem hôpital nga xoolal ma ko loolu mooy mooy li ci nekk ba nga demee hôpital ban feebar lañ la wax nga am exactement ñu ma tension léeg ñu xam nga feebar yi moom dañuy wax rek feebar yi dajale loolu dañu ne moo la moo dal gëlëkum mhm. ñu naan tension ñu naan tâche kii nangam euh, ñu naan neer yi bopp yi lu ne lu ne wax nañ ma ko mhm. ñu naan liggéey la nga xam ne sëriñ si rek ak wàllu mystique rek li ma ci def rek bari na. Mm-hmm. kon mu mel ni ñaari côté yëpp. ñaari côté yëpp faja naa ko ko. Mm-hmm. parce que démb gis nañ koo xam ne nee na nee na moom dañ ko dañ la liggéey am na duñ la def. waaw xam nga kooku moom la mu gis ak man li ma xam ni ma dal bokkul ndax man duma ko ñuy liggéey di ma jekku maam boo ma mën nga ma liggéey mais doo mu xam gëm naa ne mënoo maa jekku mm-hmm. gëm naa ne mën nga maam mboot waaye fexe ba jéeg sama kaw moo yombul kon nag loolu moom lu mu gis la xaj na waaye man de gisuma loolu ci sama bopp. Mm-hmm. kon lu tax feebar ma dal daal nattu teg ko yàlla teg ko ci sama kaw. gëm naa ne bu ma fajoo bu ñu ma fajee danaa wér ndax mënu maa faj sama bopp ndax ma mënoon a faj sama bopp du ma ñëw ci internet bi di wax. Mm-hmm. li nga wax nag démb da tooy na xol yëpp parce que mm-hmm. ku nekk bu la gisee bégal nga leen euh, ci ci série wiiri wiiri. Euh, démb ba nga defee vidéo bi euh, yan retour nga ci am est-ce que am nga ñoo xam ne woo nañ la masawu la. waaw Sénégal mën naa la wax Sénégal gépp woo nañ ma mastawu mbooloom fu Sénégal nekk rek woo nga ma mastawu ma ñi amul kër di jënd nañ kër di woo ma mastawu ma maa ngi gërëm ñi nga xamante ni yëkkati nañ seen xaalis di ma ko envoyé gëm naa ne Sénégal yëpp envoyé nañ ma xaalis kon xam nga loolu sant yàlla la muy cent franc woo muy deux cent woo nit ñi yëkkati nañ seen fukki dërëm ak seen juróom ak seen ñaar yónnee ma te loolu bu ma wéeruloon sax gëm naa ne man sama xol sedd na quoi parce que xam gëm naa ne sénégalais yi bëgg nañ ma. alors ci loolu noonu dama lay bëggoon laaj. est-ce que bay Fall parce que ñu bëri dañoo titre Baye Fall dafa dafa aveugle maanaam mënatul gis dara. Hmm. est-ce que mënatoo gis dara dara wala bokk vision bi moo faible un peu. noonu moo moo maa ngi gis de. yaa ngi gis. li ma bëgg ci sama gis-gis laay amatul. ah dafa wàññeeku gis-gis bee. wàññeeku maanaam bu doon ni 100 mooy gis maa ngi fi mu ne 35 pour cent. ndax dégg nga li ma wax. d'accord comprendre léegi euh, est-ce que am nga par exemple ñu bëri déplorer nañ nag ci commentaire yi ñun si la ñuy basé wu pour mën la poser ñu bëri ñu ngi ñu ngi ñu ngi wax ay soleil levant lu tax jàppale wuñ la ak yooyu noonu hmm. déjà est-ce que ñoom yëgoon nañ sa feebar bi soleil levant mhm. waaw yëg nañ sama feebar kay kuy kuy tourné théâtre kat buy nekk soleil levant di tourné xam nga ne Baye Fall bëti dafa am problème ci ci ci ci ci at yi mujj ci wiiri wiiri xam nga loolu moom nee na di ko ñi ñi yëgee loolu la ko yëgee démb. loolu du dëgg moom loolu mu wax noonu déclaration bi la yëg démb mais moom xam na ni man samay bët ba mu dalee feebar moom daanaa dugg ci saal fekk mu toog mu la ma banku di ma di ma tooñ loolu bu ko waxee amul ndax man bu ma waxul dëgg rek damay bu damay fen moom noonu la ko loolu la la wax. nee na yëgu ko. loolu loolu mu wax ak li am bokkut dégg nga li ma wax. dégg naa la ndax man amul ku may ragal ci àddina amul ku may sosal ci àdduna moom sama xarit la yàgg nañu bi ma koy xam nekkul théâtre kat dégg nga. Mhm. kon moom moom ñaata yoon laa ñëw këram bu ñuy ànd ci escalier yi moo may jàpp bu toogee foofu na ngeen woo ko mu naan loolu li euh, ngeen ko yégee laa ko yégee bul jàkkaarloo du wax loolu. waaw ah, moom parce euh, li mu wax. mooy euh, yëgu ko. Hmm. moom amoon na relation sax yoo xam ne mënoon na la faj mais ñëwoo ci moom wax ko sa feebar. mooy lu mu wax sama feebar mooy lan. loolu yow la koy wax rek du ma wax loolu man loolu yow la koy wax yow waa Sénégal naa la am naa relation yu faj Baye Fall relation yi faj Baye Fall bu ko amoon da koy dem wuti faj ma te ba ñu nekkee Thiès may am problème Baye dangay ngay dawal moto bi dem ndakaar ah Baye yow sa bët yi nangam waaw. ñëpp témoigné nañ ni moom moo gënoon a xam sax li ma daal ndax man li may séq ak moom séquma ko ñeneen ñi ndax moom mooy sama kóllëre gi nga xam te ni moo tax man ma xam waa la Levant ndax dégg nga baax li ma wax man moom see alaaji Seexu géey man moom moom man moom moo tax ma xam waa Seex Njaay moo tax ma xam asis moom mooy sama xarit bu dee maa jàpp xarit gi nag ma xam bu fekkee ne ñun ñaar yàlla dañoo boole ñu nekk ay xarit ma xam mais man li ma jàpp man alaaji Seexu Géy ba ñuy xaritoo man ak moom booba tur bu soleil la ma taxawagul moom sama rakk la yaa ngi may dégg ah, dafa sant Géy ma sant Géy waaw dama lay wax dafa sant Géy man ma sant Géy ma jàpp ko mhm. ñu am fu ñu jaar man ak moom ci yirul yii muy sama xarit ma def ko comme ku ma bokkal benn baay bu ma ko masaana seeti dañ ko naan sa waaju mën a sañse ji ñëwoon na fi dégg nga baax li ma la wax saa bu ma ko fekkee këram day yëkkati yére jox ma wala mu yëkkati daal jox ma teral ma ma dem kooku dama ko jàppee jàppee ma ko xarit dama ko jàppee comme ay frère ma ak moom ay frère lañu déggal baax li ma la wax. Mm. man bi may nekk artiste di génn ci ay télé moom booba kenn filmé gu ko. yaa ngi dégg man 92 waa espace francophone jóge nañu France ñëw fekk ma Thiès defal ma documentaire booba benn troupe buy théâtre bu ñuy filmer amul Thiès man. bu nu dugg ci yenn polémique dama am sama problème ñi ma war a jàppale bu ñu ma jàppale woon du ma agsi fii di wax ci ay télé kon sama problème rek la na bu yàgg moom lu ko neex la may la ma war a def parce que may naa ko loolu ci suma bopp li ma may alaaji Seexu Gay ci suma bopp man mayuma ko keneenoo keneenoo keneen parce que ñu bëri dañ ñaan euh, comme ci troupe bi euh, gis nañ la nga koy joué te nee nañ euh, yow bokkoo woon ci troupe bi bokkoo woon ci soleil levant déedéet waruñu la jël en charge non bokkuma la ñu jël ma en charge de bëgguma sax ñu jël ma en charge waaye damaa am ak ñoom kóllëre goo xamante ne war nañ ma defal lu ne comme ni ko jaamur ñi nga xam ne xamuñu ma xawma leen di ma ko defale ndax dégg bu baax. waaw jaamur ñi nga xamante ni man xaw ma leen xamuñu ma mosuñu seq benn kóllëre ñu yëkkati seen alal di ko def ci man moom ñoom waroon nañ def loolu. est-ce que am nañ ko. ah xaw ma de. ñoom kay fay fay la ñu sekkoon te nag yow wala. soxna si. Hmm. sëy boo ko dee ngoro woowee bu ma amee def bu ma amul baax sa ngoro du yàgg ay tool boo ca dee dem bu ma mënee dem bu ma mënul sonnee noppalu say tool day booy ñun ay sénégalais lañu daal dégg nga man taalibe maam Seera Fall gëm naa Sisi Krista gëm naa Alaaji Malick gëm naa baay ñas gëm naa képp koo xamante ni que yaa ngi am course di ñaan gëm naa bépp tarixe ci Sénégal gëm naa baay Laay Mhm. yaa ngi may dégg mhm. man baay Fall boo xamante ni ko lépp lu ma nit gën a bëgg ma wàcc kook yow man ba may faj sama bopp di ba ma mënee am un million ñii fii cëpp-cëpp yi ñëpp kenn mënu fee liggéey cent franc man yàgg na maa faj suma bopp balaa meew ma kenn damaa am problème ci suma santé ñi ma mën a ñi ko xam ne waroon nañ ci wax ay baat def jëf ci ay baat waxuñ ci woon dañ ma doon moytu di ma fente dégg nga baax li ma wax. maa ngi dégg. di ma fente. tey bu ma ñëw rek génn ci internet parce que jaaxle naa di wax ñuy moytu nañu nañu assumer suñu responsabilité bu di miim dara parce que man li may wax nii day dëgg bu ma naree toog fii di fenn man nga man ne fay leen caméra yi man ku ma mm. filmer ku ma bàyyi laa yemale képp. Mm. man namuma yooyu. Mm. man bu may génn ci ay télé di war sama vélo di def documentaire di ko tourner ca Thiès booba benn artiste fa amoon muy man ba may siiw ca Thiès kenn ba may xam moteur action booba yàgg na yàgg yàlla yàgg na maa may taraanga wax naa la ni la kenn mënu maa jox lu ma yàlla joxut dégg nga man namuma ju namuma jax damaa am problème ci sama santé ku ma faj laa bëgg fajukaay yi ne ak af Sénégal gi yëpp dem naa ci def naa ci sama xaalis propre moyen am naa xarit yoo xam ne bëgguñ sax ma tudd seeni i def nañ ci seen propre moyen mais dañoo yor seen njaboot duñu yëkkati li ñu war a yóbbu ci seen njaboot di ma ko jox. lii mooy ci def ëpp na ñaata million buñ ko doon estimé. ku jaay terrain. waaw terrain moom cher bu baax laa amoon. Mhm. bu placé ma jaay ko def ko ci samay bët mbas mii rek bi mu ñëwee li ma dencoon lépp ci laa ko dépassé boole koog di faju Baye Sidi mi ànd nu ba tàyyi dem hôpital ba may tourné ci wiiri wiiri laa doon faju waxuma laa kon bi may ñu ne yëguñu mm-hmm. loolu loolu dañuy wax rek mm-hmm. li nga gis tamit euh, ñu bari ay autorité ku mel ni Iran Ndaw gis nañ ko mu génn mu ne dañ la war a jàppale nit ku baax la ku mel ni Youssou euh, nit ku baax la dañ la war a jàppale Iran Ndaw mm-hmm. li muy def yegg ci yàlla la bëgg te xam naa dana yegg ci yàlla kenn mënu koo baare moom moom ma xamul rek wala mu fàtte mu fekk naa ko ba tàyyi Sud FM ndax man Sud FM man lañ fa njëkk a invité ci artiste rencontre des arts ak Dija Mbaye Sud FM man lañ fa njëkk a invité ci artiste maak Moustapha Ndiaye émission bu ñu naan mbedd mi li ma lay wax ni 94 la woon yaa ngi may dégg mhm. dinaa xam naa ko ba baax moom moo ma fàtte nit ku baax la li muy def nii mooy tax a yegg ci yàlla nit da ngay jëf rek te bañ a geesu yaa ngi dégg xamuma miinuma de waaye wax na tey àdduna bépp ñu leen jàppale leen Baye Fall parce que jullit la euh, taalibe la sénégalais la seen doom la loolu moo war a am bu ko ñëpp defandoo woon <laughs> kon man du ma am problème li Iran def bu ko ñëpp defandoo woon duma am problème sa bët bi euh, lan la la yàqal loo xam ne tey yaa ngi ci doon jëngu euh, mënatoo ko ndax ndax bët yi non yow tam bët i war a gis cent pour cent amatoo trente cinq pour cent lan la la yàqal xamoo li ma kaay ma wàcc wàlla li ma dal nga wàcc ci escalier yi nga xool nga ne ma ban njëriñ la la war a amal man ma yor oto di ko war a dawal di doxi samay soxla am mm. soxla ndakaaru gi di ko dox yor sama kër nga xam te ne fu ma jëm damay def prête attention nga ni ma lu mu la yàqal ki li na yàq bu ma seetaanee sama àdduna yàqu mm-hmm. ay bët mooy doomu aadama man soxla ma dara ci àdduna naa wér rek mm-hmm. dégg nga bu sama bët yi leeree ba wér man lu ma bëgg mën naa ko am lu liggéey di may rek duma ko ñaan kenn parce que jàmbaar laa am naa xam-xam mm-hmm. du dëgg mm-hmm. noonu rek la demee est-ce que am na ku la woon ne daf lay waaw euh, ñuy woote bari na mais dafa am loo xamante ni que daf maa dal dalati ma danaa ko gérer danaa ko gérer toog sa kër danaa ko gérer sénégalais nag dafa mën loolu day waaw dama wax rek man sénégalais man fi laa dëkk waaye danaa ko gérer danaa ko gérer toog sa kër gérer wu ko xam nga lu koy gérer bàyyi faal foo ne mu ne maa ngi béréb sàngam nga dawal sa oto ñëw lan mooy problème bi wax réglé ko wala nga woola ma fekk ma béréb sàngam ma ñëw nga ñu réglé problème bi une bon fois pour bë bëri bi fajukaay yi fajoo ci Sénégal yi ci bari dem naa yi ma fi demal bëriwul te mënuñ ci sama bët yi dara li ma ci benn docteur mu jox mooy Baye Fall ma ne ah ma ma boo bëggee wér demal nga demal nga wuti Europe nga faj. nga faj mhm. maa ngi woon ak képp koo xamante ni que artiste nga ne sénégalais yaa ngi dégg. Mhm. maa ngi woo képp koo xamante ne artiste nga kilifa nga nekk senegal euh, ma am ci yow yaakaar nga jàppale ma nga jàppale ma ndax lii am moom am na ba pare yalwaan naa ba pare. génn naa ci site wax naa ba pare amatuma lu ma ci arrière ndax li ma gën a jafe démb laa ko def toog gi ma toog soq ñëw toog euh, rijaal ñëw toog aboo ñëw toog ma wax loolu moo gën a jafe ci sama àdduna boo ma waxoon tey ji lan moo gën a metti ci sa àdduna ma la bisu démb te def naa ko mhm. waaw mhm. du dëgg samay rangoñ moom jeex na jooy naa ba sonn mhm. mënatumaa jooy du dëgg te góor góor laa du dëgg lu am yàlla fekke na ko yaa ngi may dégg fii ma toll ni di wax ak yow nii bu ma fajulee sax man kontaan naa ci Sénégal ba pare mhm. te natt bi ma yàlla te gëm naa ni mën na ko teggi mhm. nattu la nit ñi gën a bañ te moo gën ci te yàlla ku mu bëgg rek la koy teg mhm. yaa ngi may dégg bu kenn toog sa kër am yaakaar ne lii arrivé Baye Fall mënu laa arrivé boo ko defee rek yaa ngi nax yaa ngi nax sa bopp man jullit laa gëm naa lan mooy dogalu suñ borom dee sax bu ma ko defoon tey jii du ma duma du ma rëccu sama àdduna li ma ci passé parce que leer na ma ci leeraak sëñ Tuubaa mosuma def lu bon te xam naa ne am na fu ma toll yàlla ndax yëg yéeg ngay ngay àgge ci yàlla lu dëgg noonu dong la demee euh, fooy waaw li may tàggatoo mooy di woo rek kilifa yi na ci senegal fii Youssou Ndour moomu maa ngi koy woo. waaw di woo Bougane Gueye Dany. su ma doomi bàyyi la ku baax la gis naa social yi muy def di woo ñëpp koo xamante ni mën nga jàpp ci sama combat rek maa ngi lay woo di woo première daam mm-hmm. Marème fay sàll di woo borom këram Macky Sall ndax gouvernement bi tànk mi ngi fi moo ñuy yilif suñu gouvernement la mm-hmm. du dëgg mm-hmm. Marème Faye Sall nit ku baax la fondation yi muy def ci ñi artistes yi feebar yëpp yëg naa ko yëg naa lépp du dëgg di woo mbàkki yu fay taalibe sëñ Tuubaa boobu nga xam te ne bi ñu amee fii problème mu jumaa moo ko fi def kon kooku maa ngi koy béggee bu baax yàgg na ma am ci moom coofeel te jumaa ji sax taxawu fi ndax yàgg na maa dégg social yi muy def mbàkki yu fay maa ngi koy woo ci combat bi ndax lii combat la ndax sook bi mu ñëwee bëgg a mu bëgg a jaay jël combat di ko def ci man ma ne ko boo naree def loolu man ma dem dugg ci internet bi woote Sadio Mané maa ngi koy woo waaw euh, équipe yu àdduna yi ba ñu daj ku sajoon am ku mel ne Sadio Mané bërki démb rek maa ngi dégg social bi muy def bi muy def loolu man maa ngi tëdd feebar mënu maa jóg fi ma tëdd lu mhm. dëgg mu jël alalam bu ko neexoon dem comme ni ñeneen ñiy def dem noose ji ko waaye defu ko da koo jël def ko ci seen dëkk investir fa maa ngi koy woo toog na ci gis naa ko ci benn vidéo mu ne Baye Fall mooy sama artiste mhm. loolu bi ma ko defee bi ma déggee baat boobu laa xam ne man amatuma dara lu may prouvé ci aar du dëgg méréew mhm. kenn barke sëñ Touba Seexu Koyaata maa ngi koy woo di woo suñu waa ji <coughs> Waly Seck Doro Gueye maa ngi koy woo bu baax sama bu doomi baay boobu Doro géey maa ngi koy woo di woo Waly sekk mm-hmm. coon baayam yàlla na ko yàlla xaaraaje na sama woykat la woon dégg nga moom mi ngi def lu baax mi ngi def social te jeune la Iran Ndaw tam maa ngi koy woo ku baax la mm-hmm. man ku koy supporter laa ndax ci lu baax la muy def man lu baax rek ku koy def rek man sama waay ngay doon ndax bëgguma lu bon kuy def lu baax rek man sama soppe ngay doon te mi ngi def lu baax te nit ku dëggu la te dëggu yombatul te jamono jii boo boo dee naafeq da ubbi juróom di raay fukk te genre yooyu nit ku honnête la ku dëggu man nag noonu laa mel lu ma bëgg a wax ci digg balaay jaar awma lu may laam-laamee mhm. di woo ñépp di woo sëñ ay dara boroom maris di ko woo di ko bége di woo soxnaam di woo soq mii nga xamante ne suma doomu ndey la suma frère la mhm. di woo Baye Sidi mii sama rakk la mhm. bokk ndey ak baay rek lañ defal waaye lu ne bokk nañ ko maa moom ba ban àndee suñu dëkk ban doon dem ba ma daane ca àll ba <laughs> yéen nga eh, di bëggee ñëpp waaw man comédien laa te bëgguma saa nit ñi ñëwee bëgguma saa bu ñu gis ma may jooy ak yooyu démb Sénégalais yëpp jooy nañ waaw boo gisee ma ma doxale nii tey jii dama bëgg nit ñi génn ci stress bi ndax sénégalais yi ñëpp jooy nañ démb mm-hmm. du dëgg te émotion bi metti na te bëgguma bugguma loolu di am ndax sénégal dama bëgg ñu nekk di kafakaree man képp ku sa bopp jëm kaw say tànk jëm suuf ba ñëw ma mm-hmm. te bi may nekkee ci aar bi eh, di jouer sénégalais yëpp bégal naa leen kon tey bu ma nekkee fii di leen jooyloo duma ma gënal mm-hmm. démb ba léegi nit damay woo ponk lu magum jëm joxuma ko añ joxuma ko rek ëpp ma ko doole muy kilifa di wax ak man di jooy kon loolu bëgguma ko ci Sénégal ndax Sénégal dëkk bi jàmm lañ fi bëgg du dëgg kon yàlla nañu yàlla defal jàmm ñun ñëpp tañ fajal ma sama bët yi sama bët yi nag faj rek moo koy moo koy tax ñu fajal ma ko sama soxna ku baax la Astou Diame maa ngi koy gërëm bu baax comprendre na ma lépp ci àdduna nee na ma boo amee lu dul mbaar sax ma dëkk ceeg yow waaw boo liggéeyatul toog amatoo benn benn avenir ci àdduna yorul mbeer mbaar rek dinaa ci dëkk ak yow da koo kon kooku teggil na ma mu ne ma bul stressé wu ci àdduna lépp loo ma mën a jox lu ne muñ naa ko bul amati benn stress ci àdduna bégal nga ma teral nga ma fépp amatoo looy def ci man boo yoree lu dul mbaar maag yow ñu dëkk ci maa ngi koy gërëm bu baax mu fi ñëwaat fekk bët yi yëpp ñëw. bilaay ndeysaan yàlla na ko yàlla dogal waa Sénégal tam. Mhm. lu ñu man ren bu déwénee ñu mën lu ko ëpp. moo taala du ñu ngaaka borom AS Pikine maa ngi koy woo di woo Pape Sarr sama waa ji xulóokat bi na xuloo nag ñu faj sama bët yi Pape Sarr. <laughs> nga xamante ni mbër mu ngemb li mu daj ci soq. day xeex guddi di xeex bëccëg mi ngi def vidéo di di di. Adamo voilà mm. ndeysaan fan yee rek maa ngi wax naan Adamo saaga yi muy saaga di nit ñaa ngi koy kaas waaye li muy def ba ba mu di li nit ñi di def ba mu di leen saaga moo gën a garaaw li di wax li nit ñi def di ko nëbb ci suuf ba muy feeñ ba Adamo di ko di ko génn di leen saaga moo gën a garaaw kon moom itam euh, na orienté wu waat rek xoolaat affaire am rek te xam ni li muy def nii lu baax ci Sénégal la ndax Sénégal dañoo dëng te ku leen di jubbante rek yaa fi war mm-hmm. maa ngi koy bëggee bu baax Adamo di ko bëgg bu baax te li ko yéene mooy ñu faj sama bët yi te xam naa sama bët yi dinañ ko faj bu soobee yàlla. incha allah jërëjëf ok ñu ngi ñaanal tan tamit yaakaar ne autorité yi nga fi lim ak ñu ñu dégg sax affaire bi. waaw ñëw dinañ ñëw taxawu la parce que tamit soxla nañ la bëgg nañ la gisaat ci yeneen affaire mm-hmm. parce que tàmm nañ la gis daal ñun la gisee nii suñu xol tamit ñun ñi sax journaliste yi du neex. Mm-hmm. donc ñu lay ñaanal tan euh, di la mm-hmm. tàggu.